mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ muntaxa basiru mbàkke xalif général de mourid yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigal ak kilifteefu sëriñ sidi mbàkke abdul ahad ak sëriñ cheikh ahmadou mbàkke xalifa sëriñ sohaybu mbàkke soxna maam say mbàkke bintu sëriñ cheikh ahmadou mbàkke sohaybu moo am mbégte di yëgle ka wootee di màggaluk maamam di màggaluk sëriñ bu mbàkke ibnu cheikhul xadim gi muy amal fëkkëram touba ma 6 ci juróomeelu fan ci koor gi programme bi i bernde addiyal ko borom bés bi di sëriñ sohaybu mbàkke ibnu cheikhul xadim mu di ko yëgal ñaanal jabootug Touba gep mbollem taalibe xarit yi soppi yi dëkkandoo yi ak mbollem këru diine yi ak mbooleem wëlëre yi diko yëgal njiitu son excellence président Macky Sall soxnaam Marème Faye premier ministre secrétaire général du gouvernement Mohamed Boun Abdallah Dionne ministre Arim Ngouille ministre Oumar ministre Ndeye Saly Diop Dieng ministre Mariama Sar ministre Abdoul Kader Fofana ministre Birima Mangara Cheikh Mbacké Sakho di conseil président de la république Serigne Abdoul Baké. Mbacké Gaïndé Fatma di kilifa diine ca Touba soxna Mame Khari Mbacké Murtala. présidente Raziak Touba Moustapha Cissélo honorable député, président parlement CDAO, honorable député Abdullah Sek Sadaga, Serin Bassirou Mbacké, maire Boutib, Dib, Abdoulahad maire Boutouba, Mbolem, maire Yenekriti département bi, Serigne Fallou président conseil départemental bu Serin Serigne Modou Mbacké Bara Doli, responsable APR Tchetouba, Serin Serigne Alla Silla, responsable APR Tchetouba, Touba, Mamadou Dia di premier ministre ak Mamadou Sow chef de cabinet pour premier ministre, Cheikh Tidiane Gueye Gossas, président conseil départemental Bougossas, maître Likaba, soxna Astoubali Limbake, soxna Adja de madame Sohna soxna Mariama Diaye soxna Daba Maki responsable politique ca Touba honorable député soxna Aïda Gaye soxna Fama Gaye soxna Boussa Touré Serigne Moussa Thioune ca Touba ak mboolem jeunesse bu Touba rawatina nag jeunesse bu Benno Bokk Yaakaar di ko yëgal soxna Mame Diarra Ndaw soxna Daba Gueye soxna Ken Bugul Jong madame Dieye Mor Lo Bassirou Diagne ak général Diène Gueye bés bango juróomi fan ci koor gi di bésu fàttaliku jàmbaaru l'islam ji Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimou Rassoul mi ñu rafatale alxuraanul karim soxna Mame Say Mbacké bintu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou di ko woote diggante fa këram ga Touba yenna 6 soxna si di ñaan ci yàlla ci daraje ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ci barke maamam di boroom bés bi Serigne bu Mbacké képp ku fa teew mu doon sag pajum aajo ak sag defaru àddina ak allah